بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى كنو تامبوليتي النوع الثامن والخمسون بنان جيما جيل نيت نواوي الثامن والخمسون التاسع والخمسون الستون النوع الثامن والخمسون موي معرفه النسب ولا النسب والأنساب لورنا التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها لتجب لكم يعني يعني سبلا نسبة نسبة لكي جمع نسبة لا كما يعني أسكن لكي كي لول بير جداو تكاوكي mooy lañ ca jublu day wuuteeg maanaam mi mi ñuy njëkk a déggee ci kaw gi buñ ko waxee rek dañ koy jàppee neen da nga jàpp nangam lañ ci jublu te fekk leneen la min dalik ci misaal nee na bokk na ci lu mel noonu kii di abu mas'ud al badri uqbatu bnu amr uqbatu bnu amr mi dañ koy askanale badri naan al badri al badri liñ ci gën a miin ci biir ci biir euh, buñ ko waxee ci ruwaat yi dañ ci jublu ku fekke xasootu badr te moom mu ne fii jubluñ ci loolu jubluñ ci daa bokkoon ci xasootu badr moo tax ma lam yashhad badran fi qawlil akthar ñu ëpp ci borom xam borom xam-xam yi dañ ne moom fekkiwut badr mooy bokku ci xeexu badr ba waaye bu ne ñu ëpp ñoo ko wax mooy war kon am nañu wax ne it da caa bokkoon ñoom ñu wax ne bokku ci woon kon dañ naan li tax ñu naan ko albadri mooy rek walakin nazala badran fa nusiba ilayha dafa am dëkk rek ñu daal koy tudde askan la ko ne badri kon badri ku dëkk badar lañ ci jublu waaye maanaam yi njëkk a ñëw boo gisee rek ku bokkoon lay jox kon loolu mooy baat bi kon maanaam mi muy joxe ci kaw gi daa wuuteeg ci biir mooy la lañ ci jublu dëgg-dëgg waaye lii mu wax it ki ki don tahqiq waxna na ci suuf na li li wér moy da bokon ci fekk badr bukhari saxal na lolu ak muslim ta anam giñ ko saxale nee na saxal gu mel non mom la jital ci dak bo amé bo amé ko ne diw defut nangam am ko ne diw def nako euh kon def ga la saxal kay saxal la ñuy la ñuy dañ nan ki saxal da xam lu kii dàq xamul rek waaw mooy ñu wax ne bokkut ci badr ci xasut badr dañoo gisut lu yoon koy woon te gis na dëkkoon na badr ñu ne kon bootul li ñu naan ko badr yi mooy la fa dëkkoon tax waaye duna di cee bokkoon moo tax waaye mu ne lii wér nag mooy bokkoon na ci kon misaal moom doonut misaal muñ mu dëppoog moom waaye meneen misaal mi moom wuute wu ceeg moom muy Souleymane ibnu Tarxaan at tiimi buñ ne tiimi demeen daam da caa bokk waaye mu ne bokku ca dafa dëkkoon rek kon nasala fii tiim tiim ak ak giir la da caa da caa daa dëkkoon fa ñoom waaye bokku ca ñoom wala sa minhum wa huwa mawla bani murra meneen misaal abu xaalid ad daalaani daalaani daalaan moom it aw askan la waaye bu ñu ne daalaan day mel na da caa bokk moom itam bokku ca as asadi la askan aw aw askanam asad ci banu asad la euh, mawla li bani asad bani asad sax moom bokku ca waaye day seen mawla hmm. nasala fii bani daalaan nag mooy daa dëkk dëkkoo nag nag banu daalaan banu daalaan batn lañ min daan askan lañ ci biir xamdaan fa nusiba ilayhim gisoo ñu askan la ko ci ñoom te bokkut ñoom waaye daa dëkkoon ak ñoom rek kon bu ñu nee daalaan wut ku bokk ci daalaan ku bokk ci askanu daalaan waaye ku dëkkoon ak ñoom la rek ibrahim ibn yazid al xuuzi laysa min al xuuz mooy mu ne moom it bokku ci ci إنما نزل الشعب الخوزي بمكة على دكون يوم بترك على دكون كيسين كارتش سين كارتش كارتش دكون في مكة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة مهدا على دكون فوفا وهي بوكوتة بوكوت بوكوتة يوم وهي قبيلة معدودة في فزارة فقيل عزرمي بتقديم الراء المهمل على الزاي كون مامي بوك تي غير غوغا دا ديكون اك نيوم ري ني نيب كون تي تود ريك دا نجا دا تيا بوك دا نتي جوبل دا تيا بوك واي جوبل نجا تيا بوك لنينا تخ محمد بن سنان العواقي موي ابو بكر البصري باهلي لا نزل في العواقة عواقة مامي دفا دا ديكون فنيوم دا دمون فك لين ديك فنيوم ري wahum batnun min abdul Qais awaqati ak awaskan nañ ci bir wa abdul qais fa nusiba ilayhim ñu dal koy askan ñu dal ko askan ci ñom rek waaye nak bokku ci da de ko nak ñom rek ahmad ibnu yusuf as-sulami mun jalilun rawa anhu muslim wa ghayru jalil moy ku mag la kon kilifa la mom mi te muslim tam netal na haditham ak ñeneen moom asdi la orifa bi sulami li ann ummahu kanat sulamiya kon moom bokkut ci ki du sulami moom ci bopp ma yaayma ko doon sabata dalika anhu moom ci bopp ma wax loolu moo wane ne moom bokku ci ci foofa waa yaay moo ci bokk wa abu amr ibne nujayd assulami ba tey kadalik fa innahu xaafiduhu ba tey bokk ci moom it ab sëtam la waaye moom it moom moo ca bokk waaye yaay baayam yaay maam moo ca bokk wa abu abdirahmaan sulami ba tey musanniful kutub li Sofiya moom mi nga xam ne taalif ne téere ci tasawuf moom it du ne daa bokk ci ci ñoom waaye yaayam moo ca yaayam yaayam yaayam mooy doomi abu amr mi ñu waxoon léegi te abu amr sax bokku ca waaye yaay maam ma ca bokk kon xeetu bi yëpp daal ci seen maam lay daal waaye du ci ñoom seen maam du jigéen kaanat ummuhu ibnata abi amrin il mazkur fa nusiba sulamiyan wa huwa azdi aydan moom it la jadduhu mooy ibnu am ahmad ibnu yusuf ahmad ibnu yusuf mee ñu waxoon kaw kon daa lu tàmbalee ci moom di wàcc dañ leen di askane naan sulami sulami te fekk doonuñ ko ñoom ñu doon kenn doonu ko ci waaye seen seen seen maam yi seen yaay maama ko doon wa yaqrubu min dalik wa bihi mu ne am na lu nuru lu jege lii itam te itam dañ ko ci toftal ma di ko jox atteem rek loolu mooy miqsam mawla ibni abbas buñ ne mawla ibni abbas te mel ne dafa nekkoon mawla bu ibn abbas ci boppam waaye nee na du mawla ibn abbas waaye mawla abdullah ibn alxaaris ibn nawfal la waaye nag daa taqoon ak ibn abbas rek lazima ibn abbasin faqila mawla ibn abbas li la zumi iya mawla buñ ko waxee ci jamono yooyu mooy koo xam ne ki ñam mawlaam la dalaa masoon a goreel dalaa masoon a moom te goreel la ñu naan moom la waaye ki ko mosoon a goreel lu Ibn Abbas waaye Abdullah ibn al-Xaaris la waaye daa taxoon ak Ibn Abbas ba far ñaan ko moom la Ibn Abbas Yazid al Faqir gis nga Yazid mi itam axalu taabian ci taabian yi la aw turam dañ ciy teg al Faqir wusifa bi daalik kon ab day mel ne laqab la laqab buñ ko jox la ne al Faqir usifa li annahu usiba fi faqaari zahrihi gis nga faqir boo ko déggee da nga jàpp ne faqir gi ñu xam la te fekk jubluwuñ ci loolu waaye dañ cee jublu ne ginnaawam ginnaawam da daa da cee gaañu woon daal fa kaane ya'lamu minhu xataa yanxaniya lahu da doon metti ba ba mujj mu mu mu mu mu mu lu mu xàññe mooy lonk ba mujj ginnaaw gi lonk noonu ñaan ko fàq yeeg jubluwuñ ku ñàkk waaye dañ cee jublu ko koo xam ne ginnaaw gi dafa lonk ngir wérati xaalit alxaza loon ci borom xam-xam yi la yu xadis yi lam yekkoon xaza am defarkatu daal doon toon defarkatu daal waaye laqab bi lañ ko jox mel na day defarkatu daal day nekkoon lu tax ñu naan ko xaddaa nag wasifa bi daalika li julusihi fil xaddaain daan toog fa ñoom rek daan toog fa defarkat daal it ñu ñu ñu ñu tudde ko defarkat daal waaye nekk toon defarkat daal kon yooyu mooy ñi nga xam ne dañ leen di askanale wala ñu melale leen loolu kaw gi li muy firi bokkut ak lañ ci jublu waaw te te li kaw gi firi nag la xel di njëkk a dem te fekk nag jubluñ ci loolu dëgg-dëgg annaw taasin wal xamsuun maarifatul mubhamaat mubham mooy lu ñu lëm lëm mooy nga xam ne waxuñ mooy kan waxuñ mooy kan wax joo xam daal luñ ci mën a xame mooy kan loolu mooy lëm lëm gi ay maarifatu asmaai man ubhima dikruhu fi lxadiisi min al rijaali wan nisaa ñi nga xam ne kon seen biñ leen di tudd dañ koo lëm dañ koo lëm wa sannafa fi dalika abdul ghani ibnu said al xaafid ñi ci taalif lay wax ñu taalif ci wàll gi di ko leeral nga xam ne seen taalif dañ fi indi ñi mel noonu ñi nga xam dañ leen tudd ci biir xadis te leen tuddee taxul ñu mën leen caa ràññale xam ne diw sàngam la abdul ghani ibnu said taalif na ci al الخطيب البغدادي مو توم تالف نجيد اك نينن كي تحقيق نانا بي گن تي نتي تالف موي تير المستفاد من مبهمات المتن والاسناد تاع العراقي موكو ديف ولي الدين العراقي نانا بوب مو گن تي تي لوني تالف تي وال گي لغي كي لم نوني مانا خامي كان kon fii moom dañ ko fee lëm mën su ko fee xam waaye ci leneen la ñuy sukkandiku mën a xam ne kiñ tuddul fii tuddin wu leer mooy diw sàngam moo tax mu ne wa yu'rafu daalika bi wuruudihi musamman fi ba'di riwaayaat mooy li ñuy xamee ne fii nga xam ne waxuñ fi ne diw sàngama li tax ñu xam ko mooy day am yeneen riwaay yoo dañ ko fay tudd ne diw sàngama ñu xam ne kon kiñ tudd fii mooy kañ lëm fële wa kathirun minhum lam yuqaf ala asmaihim am na ci xam ne sax ba tey xamuñ nuñ tudd dëgg-dëgg waaw ñooy ñooy ñooy kan dëgg-dëgg ba tey xamuñ ko mhm. loolu nag dana nekk ibham ibham mooy tudd loo xam ne rek tudd tudd tudd nit te nañ ko tuddee du tax ñu ràññee ko xam ne diw sàngam su mel nga ne jenn waay wala mag mu baax wala كوداي ولا كليفة ولا خيري يب دنيا خم ديو سانغام لول منا نك تيمادن منا نك سانوت وهو على أقسام أي خدلا منها بكونة تي وهو من أبهمها تبي خيري مي بعوا ما يلي تيجينا لنت لي تيجينا لمو ما يلي تيجينا سوري أغلير لي تيجينا سوري أغرانيكو ما يما فيه رجل بين رجل لك ولا امرأة لك جنواي نعمة ولا سن صحما نانما ولا أسنداو ولا أسنداو نانكو ولا أسنداو ديكون ولا وخنا أسنداو نانغ يمل نون يبرك ومن أمثلة حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنهما لوردن لا تبيد عنها عنهما أن رجلا يا رسول الله الحج كل عام حديث بابن عباس xam ne boo ko ci nettali yooyu nii la ko ca waxee dana am na waaju wax yonente bi ne ko nangam waaju waaju waa am na am na waaju ko wax rek waajooju kan xamul kan la loolu loolu lu lëmu la moo gën a nee na moo gën a lëmu ci xeet yi di ko laaj naan ko ndax aj at mu nekk lay war mu nekk day war mu aj mu aji ci at mu ne rajulan jooju mu ne kooku ñu lëm ci bi mooy al aqra ibn xaabis mhm. li na ko xamal mooy bayyana ibnu abbas fi riwaayatin am na fu mu ko nettalee dana jenn waay rek am na fu ko nettalee daa tudd turam yoo xam ne comme fi mu ne jenn waay aqra la ci jublu ba tey xadiis mhm. mhm. ba tey misaal abi saidin xudri في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على ثلاثين شاه بحديث بجاه حديث بو أبو سعيد نتلين دفع أمون كي صحابة ينو أندون برومبو أبقون أبكارتي نيوانيب ñu aajo ñu aajo daal naandoo la mel noonu ñooy lànk joxuñ leen daal daal eh, gana ganalewuñ leen hmm. far yàlla dogal seen kilifa ñoom waa koñ ba eh, jaan matt ko kenn ci saxaaba yooyu àndoon daal di koy mocc bi mu ko moccee mocc ko faatiha waaye nag dana dañoo dëppoo ci ñu fay ko ay gàtt fanweeri gàtt bañ ak see nattali ko yonente bi mooy leen leen ma sama wàll loolu mooy li ko mottali xadis boobu dane rek am am kenn ci ñoom jenn waa ci ñoom jenn waa jooju loolu mupp xam la waaye mupp xam boobu mooy abu saïd mi nettali ci boppam moo bañ a tudd turam rek jenn waay loolu xeetu woyof la léeg-léeg ngir buy nettali loo xam ne moo ko def tamit bañ luy nuru damu walla dara mën naa bañ a tudd turam ne am ku ne nangam rek moom mu ne am ku ko mocc am kenn ci ñoom kenn ci ñoom mocc ko xam ne kenn ci ñoom kooku mu wax moom la moom moom Abu Saïd loolu tam ci yeneen riwaayaat lañ ko gisee rek ci lañ ko gisee moom beneen tam xadisu anas anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raa xablan mamduudan ak see gudd duna wéttee anas tam fi muy wax ne anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raa xablan mamduudan bayna saariyatayn fil masjid dafa gisoon ci jàkka ja jumaa ja ñaari poto mu gis ak buum buñ ci takk ci ñaari poto ni takk ko ci poto bi takk ko ci poto bi aa fa saala mu laaj lii lan la ñu ne ko diw am net boo xam diw rek la wax diw diw diw moo fi julli mooy naafila naafi naafila saabu demee ba sonn bu munta taxaw mu ci jàpp waaw diw mu xam foofu diw rek la ñuy wax diw mubham la mubham la diw moomu nag biñ gisee yeneen riwaayaat am na ci ñu ne Zeynab bint Jahsh la di bokk ci waa këram am ñu ne mbokk mbokkum Zeynab la mooy magam wala rakkam tudd ham xam naat xam naatu bintu Jahsh am ñu ne Maymuna la bintul Xaaris ba tey bokk ci waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. almaratu lati ba tey beneen misaal saalat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil ghusli min al mahid soxna sa laaj yonent bi na ko jigéen boo gisee baax ndax day sanku yonent bi ne ko xudi firsatan min misk di wax ak moom di ko wax ni mu koy defee daal kii da ko doon laaj nu mu koy defee nu muy sangoo moo mu koy wax ni mu koy defe foofa dañoo wax nag jigéen jenn jigéen rek foofu daa nekk mu xam waaye xam nañ ne moom it asma bint i ibn sakan la al ansaariya am na ñu ko waaw mhm. wakaan yuqaal lahu xatibatu nisa daal ñu ko tuddee noonu xatibatu nisa mooy dañ dañ dañoo war ne ku mënoon a wax la daal rawatina bi mu doon laaj yonent bi ay laaj yoo xam ne ñu bari ci jigéen ñi dañ ko dut man daal da leen laajal daanaka daal léeg-léeg ñu jógee laaj ñu jabal ko ma dem laajal leen bañ ci tuddi ko noonu wa fi li muslimin tasmiyatuha asma bint shakal waaw kon bint waaye asma la rek mooy jëm nañoo xam daal kan la mhm. wa minha ba tey bokk na ci lu mel ci ci ibham kon wax na wenn xeet te mooy ne jenn waay rek wala senn soxna rek wala senn si ndaw rek loolu nee na moo gën a sori moo gën a moo gën a lëmu waaye bokk na ba tey ci li lëmu maa abhama bi an qiila fiihi ibnu fulaan ibnu fulaan nga xam ne waxuñ moom nu mu tudd waaye baayam lañ wax rek dañu doomi muhammad rek wala doomi ibrahim rek Mm-hmm. wala ibnul fulaani aw ibnatu fulaam aw naxu dalik min dalika ummi atiya maatat ixda banaati rasulillah gis nga ixda banaati rasulillah jenn doom jenn doom jenn kenn ci doom yonent ci doom yu jigéen ñi xam nga waxut kan la wax na baayam waaye waxut moom turam kon moo tax ne moo tax ne moo tax ne rek jenn rek moo gën a sori moom kil néew néew moom xam nañ xam nañ baayam tudd na baayam donte tudd tudd ko trop moom benn rek moo tax mu gën a fii mu nekkoon kenn ci doom yonent bi yonent bi yu jigéen doom yu jigéen yonent bi sallam dafa génn àddina yonent bi ne irsil naha bi ma in wa sidr muy wax buñ koy sang nañ ko sange ndox ak xobi déem ba xadis ba jeex kooku ñu lëm foofu ne ixda banaat rasulillah rek mooy Zeynab mooy ab taawam am na ñu ne Ruqaya taawam waaye moom leen Zeynab mooy taawam am na ñu am na ñu ne Umu Kalsum la it waaye Zeynab bi moo gën a dëgër ba tey ibnul lut biya wala latbiya wala lutabiya wala latabiya noonu rek lañ koy jànge moom it am na koo xam noonu lañ ko tuddee rek sax dañ leen bàyyi doomi doomi latabiya lutbiya dakara saaxibu tabaqaat te mooy Muhammad ibn Saad ibn Saad ci tabaqaatam wax na ci ne an nasmahu abdullah ibnu lut bi yem yi abdullah la tudd kon fee dañ koo lëm doomi lut bi rek lëmu na وهذه نسبة إلى بني لوط بضم اللام دنجو أسكان لكون تي تي تي أسكان وو وإسكان التاء مي لوط المثنى من فوق مم بطن من الأسد أو أسكان لا كبير أسد بإسكان السين وهم الأسد باتاي دانيو أسد دي واخ أسد وقيل فيه ابن الأطبية من أمنا نيو واخ ابن الأطبية بالهمزة ولا صحة لو لولو ويروت lutbiya ji wala lutabiya wala latabiya wala latbiya looloo looloo wér ba tey ibnu mar mirban am na koo xam ne loolu rek la ñuy wax ibnu mirban rek al ansaari alladi arsalahu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ila ahli arafa wa qaala kunu ala mashaa'irikum moom yendoon arafa itam biñ koy tudd dañ na rek ibnu mirban am na fu ñu ko tuddee noonu rek nee na mooy zayd la tudd dëgg-dëgg waaye waaqid yi waaqid yi ak ibnu saad waaqid yi ak ki ko daan bindal te mooy ibnu saad ñoom dañ ne abdullah la tudd ibnu umm ibnu ummi maktuum moom it am na yonente bi day wax na bu ibnu ummi maktuum noddee loola guddi la guddi gi la ngeen di lekk ba léegi bu bilaal noddee na ngeen ibnu ummi maktuum loolu moom it dane doomi doomi diw rek waaye xam nañ ne mooy abdullah ibnu ibnu zaida am ñu ne amr ibnu qays am ñu wax leneen waaye abdullah moo gën a moo gën a siiw wa um maktum ismuha aatika baayam baayam yaayam jiitam aatika la tudd dëgg-dëgg bint abdullah alibnatu lati araada banu hisham ibn al mughirat an yuzawijuha min ali gis nga fii itam xadis boo xam day wane ne ñoom ñi bëggoon nañoo bëggoon nañoo may seydna ali doomi doom ju doomi abu jahl waxuñ kan la doom rek doom joojee kon foofu dañ koo lëm mi ngi tudd al hmm, awra <coughs> ba tey bokk na ci wa minha bokk na ci yi ñu lëm itam ñu ne rek amu diw wala amatu diw wala yu mel noonu wala bu ñu waxee xaalu diw wala xuu diw wala yooyu yëpp rek mooy mag yi diw bàjjani diw ne jaayi diw rakki diw yu mel noonu min dalika rafi ibn xadij an ammihi gisoo rafi ibn xadij am na xadis boo xam dañaa rafi ibn xadij nee na baayam bu ndaw nee na ko nangam te xadis ba aju ci fi mu muxaabara xadis bi wax ci mu mu muxaabara mooy euh, jox nit sa tool mu bàyyi ko lu ca ñore ngeen seq ko ngeen wax ne da ci am nangam nga am ci nangam hmm, xadis buy wax ci loola daa dikkee ni ñu ne rafia da ko jële ci baayam baayam baayam ju ndaw rek baayam bu ndaw tudduñ turam waaye xam nañ ne turam mooy Zuhair ابن رافع الحارثي الأنصاري ak Ziyaad ibn Ilaqa moom it dana am xadis yoo xam ne ñu koy ne dana Ziyaad nee na bàyyam bu ndaw nee na ko an ammihi waaye bàyyam bu ndaw boobee mooy Qutbat ibn Malik ak Saalabi Jaabir ibn Abdillah moom it am na xadis boo xam dañ naan ammatoom mooy bàjjanam bàjjanam bi ñu rayee baayam moom jaabir muy abdullah biñ ko rayee ci loxo bàjjanam da ko doon jooy bàjjanam rek la ñu wax nga xam ne loolu kon mupp xam la waaye xam nañ ne bàjjanam jooju mi ngi tudd Fatimatu bint Amr ibn Haram waaye waaqid yi moom hind la ko tudde daf ne hind la tudd hmm. bokk na ci ibham ba tey yiñ yiñ ibham mooy ñu mel ne zawjatu diw wala zawju diw hmm. min dalika xadisu subayaat al aslamiya annaha waladat bada wafaati zawjiha bi ayaal gis nga xadis gis nga ifham ci biir ci biir matn bi la ginnaaw këram noppaloo faatoo ba ci ay fan rek la la la yeewiku daa nga borom këram rek la ñuy wax borom këram kon mu pam la waaye xam nañ ne mooy sant ibnu xaw la alladi rasalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an maata bi makkata wa kaana moom mi nga xam ne yonent bi daa mel ne bi bi mu faatoo màkka yonent bi da ko rasalahu mm. mooy ne da ko da daal koo xam ne jihaad na ba tàyyi ba noppi faatu noon rek nga xam ne man da ko yéene woon mu faatoo ci xeex daal mm-hmm. fekkoon fekkoon na Badr bokkoon ci زوج بروا ولا بروا بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة ولغة نيوم بروا لن يوخ وشاع في أثناء الحديث نكسرها بدأ حديث موم لأن بي بروا من كيكس زوج زوج بوم خمنا تدنكو تجنا زوج بروا رك ولا بروا من يتدو هلال ابن مرة الأشجعي ala maa rawaynaa min xeeri wacc léegi nam ñëwee ci xadis ba mooy da ko da koo dencoon te te can gum koy jox waxut ne naa ko jox nangam ci can far yàlla dogal mu faatu te seqaguñ dara waaw ñu ne bi dana kon nañ ko jox lu ñu wax maharul misl nañ seet dañ seet ñi ñi doon ay nawleem daal lu ñu leen daan jox can jox ko ci alal ji mu fi bàyyi hmm. zawjatu abdurahman ibnu zubair ibnu zabir zabir fatxi zaay allati kaanat taxta rifaata bni sama sam samwaal wala simwaal alxurazi fa tallaqaha soxna si itam biñ koy tudd dañ na rek soxna si diw hmm. rifaata ko njëkkoon yor tàggoog moom Abdurahmaan wu Zabir yor ko mhm. moom itam xaddis ba mooy daa bëggoon a delluwaat te borom kër bu njëkk ba mhm. euh, moom ni ngi tudd Tamima bint Wahb am ñu ne ma am ñu ne sax Suhayma waaw waaye li am solo mooy ibhaam nañ ko fële waaye topp nañ ba gis ay tur yu jàpp na mooy turam an nawul fii sittiin mooy maarifat tawaarixi ruwa fii mooy ruwa yi mooy ñi nettali xadis ñu xam seeni taarix rawatina kañ nañ fi jóg kañ lañ génn àddina kañ nañ génn àddina loolu moom li li li gën a tax ñu koy soxla mooy ngir ñu mën a xam ndax ñiy fekk bu diw ne jëlee na ci diw mën a xam ndax fekkante nañ wala ñu xamee ne diw mi a na ci moom jamono sàngam la génn hmm. xam ndax moom fekk na ko fi wala fekk hmm. mooy seen jamono fi jógee na ci maarifatu wafayaati saxaabati wal muhaddisiina wal ulama mooy biñ ñu génnee àddina ñuy génne àddina xam ne euh, nangam sàngam lay gane àddina nangam sàngam la génn àddina ba ma xaadiri amaarihim xam itam seen dund nu xam ne juróom fukki at ak nangam la dund wala juróom fukki at ak nangam wala nangam wa naxwi dalik mm-hmm. euh, rawaynaa an Sufyaan an Sufyaan ath-Thawri annahu qaal لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ لأن نتلك دين تعمل هذه الصوص لين تعمل إن تمنك بجس التاريخ بجس الرواة دي كان نكون كان نف كان نجنا أدينا كان نجنا أدينا نعتاد لدند بكو أخني دوني أنا ما بقول كلاجة كان يلا كو أخن بوأخي أدم أخن فكنا كو جنا أدينا يخلنا هو دك تانتي جو خير مثال يخلنا وروينا عن حفص بن غياث أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين mu ne kuy nettali bu ngeen ko bu ngeen sikkee sàkk ci moom bu ngeen sikkee sàkk ci moom na ko natte ci at yi at yi mooy na ko laaj kañ la kañ la jële woon ci kii mu wax ne ci moom la jële fekk xam ngeen kooka kañ le doon dund da mën a xam ndax wax dëggam déet ndax yenn mën na wala déet يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه ولا غن سيت اي اتام موم اك اتي كيم واخنا سي موم لا جيلي وهذا كنحو ما رويناه عن اسماعيل بن عياش قال مو جوخي مثال اسماعيل بن عياش دا فا كنت بالعراق فاتاني اهل الحديث ني ييغو سي حديث نيو في مان فقالوا ني نما ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان ني أنا في دالوا جو خامنة داي نتلي نان خالد نوادا ماكو ماكو كوه فأتيته مدام جموم فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدا خالد مي غي نتلي جموم من أب نغا نغا نغا نغا نغا نغا جيلي جموم لي غي نتلي فقال سنة الثلاثة عشرة مو وقعت مي يعني ومئة مو مئة وثلاثة عشرة fukki at moom laa la la laa jële ci moom li may nettali fa qultu ma ko ah kon de yow nee nga anta tazumu annaka sami'ta min xaalid ibni maadan baada mawtihi nga xaalid jóge door a jële ci moom <laughs> gis nga moom moom xamul xew xaala ismail ismail mi wax loolu waaja ne maata xaalid doon sanata sittin wa mia bu dee xaalid sanata sitt la fi jóge te waa moom nee na sanatu salaasa asharata la ko la ko jëli ci moom mooy kon juróom-ñaari at ginnaaw bi nga ko jógee la qultu ibnu salah waqad rawayna an ufayr ibnu maadan qissatun qissatan nahwa haadihi mu ne nañ ci kii itam xissa bu bu nuroog bii jarat lahu ma baadi man xaddata an xaalid ibnu maadan moom itam boo xam ne mi ngi xaw a digganteem ak ku كودون وخنان خالد بن عدن موكو نيت موكو وخني نانغام ذكر عفير فيها ان خالد مات سنه 400 عفير مو دا وخني خالد سنه 400 الف جوغي ما دا نيو ووتو كون تي مان اتلفي لفي خالد جوغي رك قال مون تي خاو كان نات لي موم بي ادمي وخني موم تي لاكو جيلي فك نمو جوغي اك لي نيو ووتو ووتو مود كون لا مخا جيتو ورواينا عن الحاكم أبي عبد الله قال الحاكم النيسابوري إمام المستدرك لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي ولا كشي نعرف لنيوكا أكي من بم نيوي في نون وحدث عن عبد بن حميد سألت عن مولده كان كوكو دانيو نيو في نون mooy daa daa ñëw fi fi ci dëkk daa jóge feneen kon ñëw yu ñëwee di wax di nettali naan Abdu ibn Humayd nee na ma xaakim nee na ma laaj ko an mawlidihi yow mii di wax kañ la gën a àddina yow ma laaj ko kañ la gën a àddina moom mii di wax fa dakar ana walida sanata sittiina wa miatayn mu ne ma at mii laa gën a àddina fa xultu li asxaabi moo wax ñu ma nekkaloon ne leen ah سمع هذا الشيخ من ابن من عبد بن حمير بعد موته بثلاث عشرة سنة. كنت سنبي بمجالتي بمجالتي آه، عبد بن حمير وفكنا عبد جوجنا في الموت كاتنجت. آه. بس نقول خم أرجع ما ما يتح. وانا خم الكون كده يخرج. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما تحريره. مام حميدي مي واخنا نه ثلاثه اشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها ونامنا يات بير يو بوك تي علوم الحديث يو خامنا موم لا ني وارا جيتال تي ييتيو موم لا ني وارا نجهك ييتيو لاندل موي العلل بلم تي علل الحديث تعلل نن احسن كتاب وضع فيه موي كتاب الدارقطني تير بي گن بونتي داف بونتي تاليف mooy bu addaara xutne meneen mbir mooy al mutalif wal muxtalif jàngoon nañ ko ci ginnaaw ñi nga xam ne seeni tur day nuroo day nuroo nuñ koy day nuroo nuñ koy bind tawut nuñ koy tudde wala ñu bokk sax nuñ koy bind ak nuñ koy tudde te fekk jëmu yi doon wuute wa ahsan kitaabin wudan fii kitaabu ibni maakula ñetteel bi mooy wafayaatu suyuux mooy net ruwaat yi ihsaan tawaarixul wafa neen ñetti mbir yooyu mu ne nag walaysa fiihi kitaab moom xumaydi ba mu koy wax moom dane ñaar yee nee na moom am nañu ci taalif fii nag moom nee na kenn taalifu kenn taalifu ci waaye ibnu salah daal na koy dab dabaatal nee na xultu fiiha xayru kitaab ibnu salah nee na ankay ankay taalif nañ ci sax lu ëpp benn téere taalif nañ ci ay téere وينك ولكن من غير استقصاء وتعميم دنج تالف دون لو خامل دنج كو توب بوم سس بوم مات دنج ان نيب نيب نيب استقصاء ما توب كو بوم سس تعميم ما ماتلكو كون ما ام ني نيو تالف واي دانيو دانيو دانيو تانو دنج دانيو تاني روا رك واي تان كي نيب وتواريخ ال اها uh -huh. wax ci souf ne mualafat yi yi gën a ci ci taarix ci tarikhul ruwa bokku na ci at tarikhul kabir li imam al bukhari bukhari amna téré bu tudd at taarixul kabir bo xamne ci tarikhul ruwa lako def ibn abi khaysama amna lum lu tudde at tarikh momit ibn hibban amna lum tudde mashahir ulama al amsar yoyep ci tarikh lay wax mune bu ibn hibban bobu nak shadidul ijaz waaw dafa dañ ko tënk lool wa tawaarixul muhaddisiin tawaarix yooyu nag day ëmb mustamil ala zikril wafayaat day ëmbaale seeni wafayaat mooy kañ lañ fi jóge wa li dalika wa naxwi summiyat tawaarix moo tax ñu tudd koy tawaarix ndax taarix yi ñu ciy tudd wa amma ma fiha min al jarxi wa taadili wa naxwihima fala yunasibu hada al ism nee na tawaarix yëpp day àndaaleeg jarx ak taadil ndax raaw yi bu ñuy wax ci moom duñu wax rek ne gane na àddina at sàngam génn na sàng mu jeex waaye daañu waxaale ci moom dara jànge na ci diw diw jàngal na ko wax boo xam wér na walla wérut ab wattukat la wala du wattukat mu ne yooyee nag moom déggoowut ak turu turu ndax ñoom taarix taarix mooy wax date bi rek lañ ci jublu jublu ci maanaam ñu xam ci taarix léegi waaye maanaam wax date rek lañ ci jublu date bi mu fi bi mu génne àddina wal nazkur min zalika uyunan mais nag ñu wax ci ci yooyu ci taarix taarixul muhaddis taarixul ulama wal muhaddisun wal saxaaba wal ñoo ñëpp mu wax mu ne ñu wax ci nag uyun uyun mooy ràññiku yu ràññiku mu tàmbalee ko ci ahaduha mu topp tàmbalee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam من الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر لأن الوير جسن سن أدين أم نم يتنيون موي ثلاث وستون سنة من تدل علي تم سيدنا علي موي تم لولام وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحا متى لو لبتي تاريخ لنكي خامي من ينتبه bisub altine ci yoor yoor lu génn àddina lisnatay ashrata laylatan xalat min chahri rabian il awal kon mooy ci fukki fan ak ñaar ci weer rabian awal ginnaaw bi fukki guddeeg ñaar jàllee kon mooy fukkeelu bëccëg beeg ñaar sanata ihda ashrata min al hijra gis nga andina andina kon tawaarix yi wax na ñaata at la la dund ak kañ na génn àddina ba ci ban bis la ak ban weer la ak yëpp وتوفي أبي ب... وتوفي أبو أبو بكر في إحدى في جماد الأولى سنة الثلاثة عشرة تاريخ الوفاة وعمر من جن أدنى في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين عثمان من جن أدنى في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة مو مو مو مو مو مو مو مو وقيل صح ابن تسعين علي في شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين بسمعتم طلق يرنتبه أبو بكر عمر وابدا علي نك وقيل ابن أربعين وستين أم نجنة أربعين وستين لا أم أم نجنة صح خمس وستين لا أم وكان في جيجي موم وطونج طلحة أك الزبير talhat ibn abdullah ak zuhair ibn al ñom ñom ñoom ñaar ñëpp fii jumaadal ula sanata 36 ndax ñom dañ leen ray ci xex dañ leen reyandoo wa rawayna an al-hakim abi abdullah moy nisaburi min don wax anna sinnahuma kaana waaxidan ñom ñaar ñoo tolo luñ dund itam kaanab nay arbaan wa sittin loolu la am arbaan وقد قيل غير ما ذكره الحاكم أم لن يوحل أن تم البوك تقلي حاكم وخ كي تي سين أدنم طول وهي كان ننجين أدنم خم للي موخون سعد بن أبي وقاص من سنة خمس وخمسين لجن أدنى على الأصح وهو ابن ثلاث وسبعين سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين وهو ابن ثلاث أو أربعين وسبعين عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين أبو عبيدة بن الجراح سنة الثمانية عشر ثمانية عشرة وهو ابن ثمان وخمسين وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره ويلي ما أخرى أمنا جوخمنا أمنا يوتا يوخمنا وهو من أمنا جوايا أمنا جو كون لم لم جكي موي يونتبي آه، أك صحابي athaani lam ca teg nag mooy shaxsaani min alsahaabati aasha fi ljahiliyati sittina sana wa fi lislaami sittina sana wa mata wa mata bil madinati sanata arbina xamsin mu ne am na ñaar ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo dëppoo ci lii lépp waaw kon mooy ñoo maase bokk at muñ génn àddina bokk at muñ génn àddina ñoom ñëpp itam ku ne am na ci jaahiliya lu jiitu na juróom benn fukki bu lislaam ñëwee mu dugg ci amaan na juróom benn fukki at mm-hmm. ko ku nekk dund na téeméer ak fukk mm-hmm. ñoom ñaar ñooy xakim ibn xizaam ahaduhuma xakim ibn xizaam wa kaana mawliduhu fi jawfil kaaba moom kaaba gi la juddoo qabla aamil fiil bi sana mm-hmm. loolu la jiitoo amul fiil kon loolu mag yonent bi rek loolu ko njëkk njëkk feeñal والثاني حسن ابن ثابت محمد جنانا لنا يوم عاصم محمد بقول فينكم ابن المنذر ابن حرام الأنصاري وروى ابن إسحاق أنه وآباءه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم عشرين ومائة سنة من أبو ابن إسحاق نانا كيموم حسن أكبايم أكي baayam mooy saabit maamam di munzir maamaatam di xaraam nee na ñoom ñeent ñoo ñëpp ku ci ne dund na téeméer ak ñaar fukk xasaan dund na ko baayam dund ko maamam dund ko maamaatam dund ko wa dakara abu nuaym alxaafid annahu laa yuraf fi larabi mis mislu dalika li gayrihim waaw nee na xamuñ ci arab yi xamuñ ci ñeneen ñu dul ñoom ñu am lu mel nii ñu tegaloo noonu am ku ci ne am téeméer ak ñaar fukk doom am ko baay maam maamaat waxat xila inna xasaana maata sanata xamsin am ñu ne xasaan sanata xamsin la fi jóge wallahu alam al thalis geneen wàll gu muy wanoor mooy ashaabul madahib al xamsa al matbua borom mazhab yi nga xam ne ñu ngi leen di topp ba jamono yi muy binde téeréem bii moom boobu xamsa la woon waaye léegi benn bi nekkatu fi arbaa ñoo fi des léegi kim jiital amoon na mazhab jamono yooyu waaye mazhabam léegi dafa mujj réer mooy Sufyaan ak Thawri mu ne fa Sufyaan ibnu Saïd ak Thawri te mooy Abu Abdillah maata bilaa xilaafin bil basrati sanata ihdaa wa sittina wa mia boobu la fi jóge kenn werantewu ko wuute amu ci wa kaana mawlidu sanata sabian wa tisaain ومالك ابن أنس الإمام مالك رضي الله عنه مام توفي بالمن سنة تسعة وسبعين ومائة قبل الثمانين بسنة كن مائة وثمانين أطلق جيدورك أطلق جيدورك كان مائة وتسعة وسبعين لجن أدنى كن أجن أدنى دبونا جمع إمام مالك وعندنا هو تجي أجن أدنى كنلا واختلف في ميلاده كان غني عدنا فقيل في سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة إحدى وتسعين وقيل سنة أربعين وتسعين وقيل سنة سبعين وتسعين كون وقت نجي كان غني عدنا ولكن جن عدنا ودبو نجي وش أبو حنيفة رحمه الله مات سنة خمسين ومئة ببغداد بولا جنات نيتم وهو ابن سبعين سنة جلوم يعرف كاد لامون كون داي ملني كون سمانين لا لا جن لا جاني لا والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة أربعين ومئتين بمصر وولد سنة خمسين ومئة كون موي bi Abu Hanifa at mi mu génne àddina ci la Shaafi génne àddina moom Ahmad ibn Hanbal maata Baghdad fi charibil axir sanata ixda wa arbaina wa miatayni la génn àddina wa walida sanata arbain wa sittina wa mia ñooñ ñooy borom mazahib bi mu ñëw ci borom téere xadis yi asxaab kutubil xadis al xamsa al mutamada radiallahu anhum moom itam jamono yooyu xamsa lañ gënoon a jàpp ibnu maaja lañ ci boolewutoon ginnaaw bi lañ ko ci boole muy sitta daan alkutubu sitta waaye jamono alkutubul xamsa lañ daan wax ka jiitu muy albuxaari te muy abu abdillah ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ومات بخرطنك ولا خيرطنك ولا xartanik ولا xirtanik باسكو que yëpp ماس قريبا من سمرقند آه، ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين فكان عمره سنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما مسلم ابن الحجاج النسابوري مات بها بها ما سابور لخمس بقين من رجب ما برجب دسي جرم فن سنة 61 أو 200 كون ما تنعرف نعرف فني أجرم دار ولا هو من خمسين سنة أو خمسين سنة أبو داود السجستاني تمام سليمان ابن العش عشاث مات بالبصرة في شوال سنة خمسين وسبعين أو مئتين أبو عيسى تمام الترمذي محمد ابن عيسى السلمي الترمذي مات بها بها ما بالترمذ لثلاث عشرة مضت من رجب mooy bi rajab amee fukki fukki fan ak ñett sanatu tisina wa samin wa mi ateen mm-hmm. abu abdurahman mooy an nasawi mooy an nasa yi la gën di wax léegi ndax nasaa nasa lañ koy askanale mm-hmm. nasawi jub na ci loxo mm-hmm. waaye nasa yi lañuy gën di wax maaleykum salaam kii nodd ماذا سنة ثلاثين والثلاثين يا الخاء مدمات ينن نعم. الخامس ما سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أنصارنا من الجروم يارك محدثون يجا خم نعم. نينا دنيو تالف كي حديث تالف يرفت تسون سون جمانو ييتم ما جمانو موم sen talif yi nit ñi jarriño ko bu baax baax buy tudd sen sen taarix ñom itam abul hasan ibn ali ibn omar adar qutni al baghdadi mata biha baghdad fii dil qaada sanata xamsin wa samanin wa salaasmia walida fii dil qaada sanata sittin wa salaasmia suma alxaakim abu abdillah ibn al bayya an nisaburi مات بها بني صابور في سفر سنه 5400 وولد بها بتا بني صابور في شهر من الاوسط 1300 ثم ابو محمد عبد الغني بن سعيد الازدي حافظ مصر ومصر لكون ولد في ذي القعده سنه 32 و300 ومات بمصر في سفر سنه 940 ثم ابو نعيم الاصبهاني mooy ahmad ibn abdullah al asbahani al xaafid wulida sanata arbaan wa salaasina wa salaasmiya wa mata fi safar sanata salaasina wa arbaamiatin bi asbahan wa min altabaqat al oxra beneen tabaqa mooy geneen maas gi ci topp abu amr ibn abdul bar an namari ibn abdul bar xaafidu ahlil maghrib kon waa maghrib mooy seen xaafid mooy kon seen mooy seen borom xam-xam hadis bu mag محدث لا فقيه la woon في مذهب مالك ولد في شهر بين الآخر سنة 68 و 300 ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر بين الآخر سنة 63 و 400 ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و 300 ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و 400 ونقل إلى بيهق فدفن بها ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي محمد أنا كنت أدل باري محمد ولد في جمعة الآخرة سنة 92 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400 رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين الله أعلم